adversaire yi nga xam ne moom la wax ah euh, te ay lamb la yoo xam ne lamb amateur la mais am na xale yoo xam ne dafa mel ni yow boole wu leen sa programme xaw ma da leen tàppat xaw ma nu demee noonu. non c'est que ñoon tàppatuma leen sax parce que lamb boo gisee ay étape la man su ma soxla su may bëree may bëree koo xamante ne nii maanaam dañuy naan kii moom maam Balla bu leen bëri li nga gis lamb ju neex man loolu laa bëgg di ko bëri. parce que ma sànq wax nga fi wax nga fi Liss Ndiago te Liss Ndiago am na combat léegi si ki mu jógee la moo tax boole woo ko si. boole naa ko si kay c'est xam la moo tax xam tax ma ma boole ak sam programme parce que làmb mën nañoo boole parce que noo bokk benn génération boo xamante ne ku ci nekk rek boo bëreetoo kii déwén mën ngaa bëree kii après ñu loo boobu noonu une for force dina am ñoo xam di nga di nga si laal am ñoo xamante ne doo leen laal mais mënoon laal ñëpp da ngay cof fii cof fii rek après yaa am gën a xam. la ma tax boole woo si laa waaw bu ñëwee ñu bëre moom laa lay wax ni ma ne maanaam man nekkul ne dama wala dara général Kéré. ba waaw. tax. waaw kan général kay day dóore. ah diggante ma Liss Ndiago kay ñëpp seetaan nañ ko. waaw mais làmb du noonu parce que ñi fi dàq dóor ñoom ñu ngi nii lamb ke boo seetloo même ba si VIP sax ñi fi dàq dóor ñoo suuf ñi fi dàq bëri nekk ci kaw làmb lool la bëri bépp solo. général kay day xeex day bëri. day xeex day bëri waaw bu ñëwee dina neex man ak moom parce que damay sawar ci mbër mel noonu. waaw loolu moom dama si soor man moo xam day xëy moom SBT bëgg kay nga jàkkaarloo nga xool général Kéré bu dee yaa may dégg man Mame la Junior no recul sa avancé bu ñu ma ko joxee du mat ñetti fan ah ma jël la daan la jël bu gaaw si kàttanu yàlla. dina sa boy wër la nii affaire yooyu ah mafia bi affaire yooyu noonu la wala. moom yàgg nañoo taxaw <laughs> ak waa Këlum Tus ak waa Faxas Joxas ñooñu moom ku ma gis ku ne di nga leen gis sama ginnaaw <laughs> moo tax du ma ragal <laughs> mais biir géew ba man moom ñoo fay ne loo daan man mu si man. te gëm naa ne incha allahu rabi suñu combat bu taxawee duñ bëre sax deux minutes. bu dee xam nga xam nga ko baax. xam naa ko damay sénaa ay làmbam man mbëri ndaw yi laay gën a sénaan que mbëri mag yi làmb mbëri ndaw samay morom man laay sénaan ay yeneen mbëri mag nii ngay gis nii su ma demul stade du ma leen sénaan jël sama temps leen sénaan ñi nga xamante ne ñoom laa war a bëreel man ñoom laay ëpp li may pour ma xam man samay adversaire man looloo tax quoi ñoom ñëpp boo yëpp xam naa leen boo déggee mel ne du lim ay tur parce que am ñoo xam ne damay ñoom xam nañ ma xam naa leen moo tax du ma limee seen tur boo dajeeg ñoom xama rek dañuy ñoot di xam yaa ma gën a xam sunu ma mbëri nu muy demee. mais dafa booy boo xam si man gisuma mbëri yëpp ko. mooy Amel Lac gisuma benn booy yëpp ko parce que bi mu fi jàppee Liss Ndiago jàpp fi euh, kii euh, nu mu tuddati euh, jarbaatu Modou bi xaw ma nan booy yaa ngi léegi ba ko fi jàppeeg léegi ah booy ñëpp dañ ko bàyyi ba fi ne nii bokk na si mbëri yi nga xam ñoo gën a naqare adversaire mais kooku avance bi yegsul si man wallaahi yegsiwul bi yegsi woon kay du du dellu man dara du dugg di génn. ay combat bëriwul parce que boo xoolee trois combats def deux victoires benn défaite. benn défaite kon maam ñoo tolloo victoire dañoo ñu bëre man avance du yàqoo ci man làmb du yàqoo ci man ñaanu ma ko yàlla. sama la amel la gros laa la wax de. amel la gros wallaahi laazim bu bu avance am duggoon suñu kër du génnaat xanaa mu ba na faa fekk mais su ma fa fekkee moom du génnaat si kàttanu yàlla. nee na moom ku jël avance am doo xeex doo bëri. doo xeex doo bëre waa c'est loolu moom suñu terme la ñu mbëri doo xeex da koo jëfee da koo jëfee parce que ñaari combat yu mu jógee da koo war ne waa waaw dëgg la bu ko neexee parce que ñu mbëri moom ku nekk ak sa ten bi ngay yor moom bu ñëwee du ma xeex du ma ah <laughs> moom dina xeex dina bëre de dina xeex dina bëre si kàttanu yàlla ma sama avance kenn du ko jël mu yombee noonu ci yow. balaa làmb ja di nga daj coono biir làmb ja balaa nga si gën di nga wax lu set. te boo ñibbi dañ lay lëng loolu moom leer na. Boy Dieng. <laughs> Boy Dieng waaw baax na. xam nga ko xam naa ko. xam bu baax xam naa sax booy bu ko xam. xam naa booy bu ko xam. xam naa booy bu ko xam di ko supporté supporté am ñoo bokk koñ. est-ce que ñaar làmb njëriñam la parce que ay adversaire taay ngeen. parce que loolu der am. parce que sama combat man l'enfant Joola bi ma taxawee. Euh, Bourguel bi may laaj dafa ne arve combat yi de moo daax si combat parce que ñoom ñaar ay adversaire de taille te boo seetee làmb joonu suñu combat moo si gën a jël temps parce que dafa metti ñaar ñu tolloo doole la maro suñu combat gën a metti ma damay sawar ci loolu xam nga ngay bëre ah ñu mel ni yow di apprécier naan boo bi kat der la loolu man loolu man loolu laay tiitaroo mais ñëw làmb bëre ba pare daan sa amateur duñ bég kooku pour man amul sens mbër da ngay ñëw làmb boo ñëwee làmb wane nga xale nga nga ñëw jàpp bëre bu ko defee sa ñi nekk seen ginnaaw fu ñu dem mën laa tiitaroo mais am na mbër yoo xamante ne nii boo leen faralee boo génnee doone maag yow bokk koñ doo ko wax bu gaa yi tiitoro naan noo maag bokk koñ doo ci bokk da ngay kul ma damaa bëgg waa curuxu fu ñu dem na waaw maag mbala noo rekil moom lay àndal waaw bu ko defee nag waaw mooy loolu. parce que diggante boo ñëwee combat bu ñor ñoom ñëpp ku ñu mës jox ma bëre. yàlla xam na ko dama si ragal kenn parce que bëggu moon di tudd ay tur parce que ñoom nee naa damay damay gisante ak ñoom nii. ay champion ay naan lan moom moo la ay combat moo la ëpp victoire. ñoom ñëpp ay champion li mu fi ñu ay champion lañ waaw man moom du ma champion ñoom ñëpp ay champion lañ mais ku ma si jox ma daan la. français ma la ñoom ñëpp ay champion lañ waaye ku ma si jox ma daan la ah? incha allah waaw. du ay caaxaan sax. su diggante booboo gën a neex. naa ñëpp nga ne Anaconda moo gën a neex pourquoi. Anaconda moom bopp bi ngay dagg rek wax ji jeex dara dootul am boo daggee bopp bi rek cooli jeex na lu fa fay desati voilà. Anaconda laa wax yow ñeme ngaa jàkkaarloo Anaconda nii taxaw. yow walaay la xasi ma wax la leen tey aw ma làmb ni mais deux séances laay liggéey wala trois séances laay entraîné te amaguma combat làmb du ma ko caaxaanee. bu ma la nee coach bi moo yor par exemple moo yoroon Eumeu Sène Abdou Ndiaye moo ñaar ñoon ñoo ma séq suñu giri ñi fa nekk samay moroom a fa ne ñoom dañ lay woo ay ñoom Babou ñoom Yannick dañ lay woo ne la yee eh, ñu ne làmb ji say moroom fi ñu fi nekk dàqu ñu laa bëre entraîné gëm sa bopp ñu ngi dooleel la nga doon champion loolu kay neex na loolu laay tiirati si ay adversaire Abdou Ndiaye barki alxuraanu karim bu tëddoon bu gudd ñu woo ko wala woo président danaan teel ma avant bi su ma yeewoo suba jël si ko parce que xam na ki mu yor ma sama kereer moom Abdou Ndiaye aw ma ci fayam maa ngi koy sant bu baax sama papa sama lépp la moo persan parce que nekk ak ay mbër di leen toppatoo ay boo yoo xamante ne ñun xam ma li ñuy fay demeewul noonu ñun dañuy perte seen temps bàyyi seen kër di ñu toppatoo kon donc ñun amuñu seen fay ñu leen di sant di leen ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay suñu yéene ci ñoom ñun mënuñu ko mottali mais suñu borom mottali ñu ko incha allah di gërëm tam waa Caare Géej bu baax. dinañ ñëw si cant yi gërëm ba tey foofu la ñu def rek SBT Média la seen émission seeti mbër ñu ñëw fii Pikine seet si ki nga xam ne moom mooy waaye du nuyu Ibou ah. <laughs> la grand réalisateur borom Kaolack mais wax naa la nga bàyyi yooyu noonu ma lay tere bàyyi ko mais mbër euh, mu mel ne que tey adversaire yi ñu fa wax nii yëpp tey ay làmb la mais tey maanaam si biir adversaire yooyu nu ma la wax nii tey ban combat boo xam ne ni tey moom bu adver maanaam bu avance bu ñëwoon tey tey tey tey combat bi taxaw avance bi taxaw combat ma gën a soxla may amee Lac Rose moom laa gën a soxla bëgguma xoon tudd nag mais moom laa gën a soxla bu ma ko amoon tey tey tey tey fu ma tëddee nelaw ndax ñàkk taxaw moo ma teree nelaw bu taxaw woon rek bu ma tëddee nelaw incha allah. Euh, maanaam lan nga njëkkoon ko quoi loolu laay laaj quoi da ngaa njëkkoon nelaw wala nu demee noonu. non tey xam nga rek tey tey ma la xam la laañee. ceebu ñebe laañee. te dañ ma koo tibal waaw moom laa añee de naan ataaya boobu ba léegi lekkaatuma dara. mais fi tolluwaay may waxee ak yow du cadre dama koo teg si côté mystique pour ñu may dégg ñu xam fi may waxee li ma la wax nii teguma ko si mystique de. mais damaa xam ne Amel la Rose nga xam ne booy ñëpp ko fi bàyyi yow nga ne yow Amel la Rose moo la teree nelaw bu combat bi taxaw rek nga dem tëddi nelaw xam nga la Rose man daa ko champion la maa ngi koy nuyu champion la mais bu fekkoon ne dafa teg la ay 15 sax ñu ne booy dañ ko fee bàyyi loolu man mën naa daa ko ne dañ ko fee baax mais 3 combats la kon booy bàyyi ñu ko fi ñoom nanguñ koo jël nanguñ koo jël. boo déggati promoteur boo déggati mun ne avance su amee dama ko téye di ko doxantoo gisuma ku ma ko jox billaahi jëlal nga andil ma boo ñëwee pourcentage bi sax yow yaa koy dagg. man man man sama bopp. parce que alxuraanu karim si yaa gars yi ñëpp ñoom ci ruxoo ñëpp a ngi toog avance su amee Lac boo ko déggee jëlal boo ñëwee ma daggal sa pourcentage ba pare daan ko nga jël reliquat bi. jàkkaarloo Ameth Lac Rose nga xool ko nga wax moom parce que SBT lu dugal moom bokk si ñi nga xam ne ñoom ñu vie. Ameth Lac Rose ma ma Mbalu Junior maa yow ma ne sa avance fu ma ko fekk muy taxawaal bu fa yëndoo du fa fanaan bu ko fa añ fekkee reer ko fa fekk bu ko fa ndékk fekkee añ du ko fa fekk balaa boo ma jël ko njëgandoo ko ko wax leneen si kàttanu yàlla. booy du ma ñoom mais làmb ji dañuy boole ma jël leen daan leen jéggi xool leneen. parce que nee na nee na nee na kenn du xeex ak moom ndax da ngay xeex ak moom jàkkaaroo nga wax moom. kenn du xeex ak moom wax ju yàqu la. xam nga gars yi dañoo taam lu ñu waxee doo xeex doo bëre. amee loolu sama combat man moom bu taxawee su xeexee ma xeex su bëree ma bëre ma xool bu ko ci neex ndax man sama làmb lépp laay prop lépp laay préparé du ma bàyyi dara mooy ci luy baax rek du am ruq biy sedd. ñu mën ngaa xeex amee la ros. waaw bu ko neexee musul ay tànk musul samay tànk ñu bëre ñu xeex. mbàccum gerte bu ko neexee nag bu ñëwee mbapat ñu mbapat ak moom am na ñu bëri ñoo xamante ne nii dañuy dégg mambaal mais xamaguñ ko parce que sama combat bi dëgg la bëri naa fi ñu bëri tax na mu xam ma mais li ma bëgg si bëri bëreeguma ko man li may daan si làmb yëpp sama foor li may bëri si làmb di sama fort. kon toog moom day bëri di xeex xëy na moom bu ñëwee la ma mën a dinaa si bëreeg moom loolu dina ma neex. su la déggee li nga mën ci làmb dëgg sa diggante Ameth la Ross nga ko bëgg a wane. laa ko bëgg a wane parce que xamul tax ma bëgg koo wane danga ne ma ñëpp dañ ko fee baax man nag nee naa la ñëpp bawuñu ko parce que ñetti combat la bëre maa ngi koy ñaanal yàlla na combat yi yokku parce que sama nawle la quoi ñoo bokk milieu bi maa ngi koy ñaanal yàlla na combat yàlla euh, ay combat mi yokku quoi mais li nga ne maam trois combat am nit ñi bàyyi ko fi moo tax ma ne bu doon quinze combat nit ñi bàyyi ko fi d'accord naa ma ne nit ñi dañ ko fee baax mais kon trois combat la am te combat am day neex moo tax ma sawar pour bëre ak moom. mbëru amateur la waaw mbëru amateur la ma ni mbëru amateur la bu ñëwee damay yëngal man bu laajee yëngal ma yëngal stade bi sama commune la ne ma fi yaa curuxu këlam dus biyee la ñuy jënd may tiset yi bu gaay yóbbu leen stade loolu kay loolu kay dee na féete na bor waxatuñ ko sax waaw man uh-huh. man damay sawar di bëreeg ñooñu damay sawar di bëreeg ñoom parce que stade dafa lu fi bëgg a wane sama commune la ne Amadou Diarra sama combat bi passé deux blocs billets la jënd mais ma di 157 ba pare na ma damal daan ba pare boo daanee boo ñëwee moo utalaal la combat li si war man kese maa ngi koy def maa ngi koy gërëm Amadou Diarra ama fayam di gërëmaale tàññaaña sama yàlla joo xamante ni duma ma seetaan mukk samay mbir sa war na ci trop lépp lu ma xewle rek da si dugal loxoom mais di gërëm sama grand benn grand bi ñu naan nuyun maar waaw moom it dañuy jàppale si lu bëri saa yu ñu xewlee dara bu demee ba foofu lépp lu ci war moom da koy def ñu ngi koy sant di sant Thier Koro Pafa tamit ñu ngi koy gërëm baax di gërëm tamit suñu benn garaan njaga kooku moom mën naa ne sax mooy mamba la waaw kooku moom mooy mooy suñu lépp daal heure bu ñu jaaxlee bu ñu fa demee non bu ñuy ñibbi si dañuy ree maa ngi koy sant bu baax garaan njaga di ko sant di ko gërëm amuñu fayam fa dañuy taxaw si côté bépp di ko gërëm mook rakkam maam Seex ko ak soxnaam waaw leen siyaar bu baax mhm. li ñu mën waxtu jeex ba nu xaawal mais ki nu invité moo ni xale boo xam si ni allah waaw non foo jaar sant gërëm parce que loolu mënut a ñàkk parce que tey am nga occasion boo xam si ko ban leen laa bañ ñibbi nga am non damaa fàtte sama booy beeg sama grand da jëlee sa tànk mais li wax mooy autorités yi nekk Pikine nañ la jàppale parce que xale nga te say morom ñoo nekk ci làmb ji te li wax chaque jour jàmbaar amul ku ndimbali ah. ko làmb soxla ak xale yi mel ni ñoom te làmb soxla leen nañ ñibbi si bàyyi xel te xam ne ñoom it waaw mi ngi noonu ñoom làmb def soxla te ñoom euh, ba bokk nañ ci mbër yi nga xam ne ngi lay sant di la gërëm ci disponibilité di la wax ne incha allah bu combat amaatee incha allah ñu jaaraat ko mu a yaatu mais ñu bàyyi la nga sant waaw loolu moom su may may gërëm ñi ma jàppale depuis mbapat ba léegi sama xarit yi may àndal ñoom moom dama leen gërëm su côté boobu parce que dafa nekk ngay ànd ak ay nit di yëngu su benn affaire ñoom ñoo lay gën a bëgg maanaam li ngay yëngu ku si mel ni Thier maa ngi koy sant bu baax Eric moom it ama fayam baabalaay waxi noppi ak laa sana booy seen moom moo ñu mag mais dafa wàccee bopp mu ànd ak ñun sama combat bi muy yàqu xaalis bari la génne jox ma ne ma préparer sa combat combat boobu yàqu bi ma amaatee combat dafa génn war xaalis joxaan ma te pourtant mënoon na ko see bañ a fekk mais maa koy sant bu baax a baax a baax di sant sama booy mi ànd ñoom baylaat Balla maa ngi koy sant ñoom Serifo ay Modou ñoom Ibrahima Pape Seck mafia curux bi yëpp ak maam Balla ak ñoom Sora di gërëm sama waa kër bu baax sama maa ngi koy siyaar bu baax suñu waa kër Baye Ndiaga ñoom Alou Grand Mbarka ñoom Birane Tande Diagne di gërëm koñ bi yëpp maa ngi gërëm maire koñ moo am seen fay ba daanaka maire koñ bi yëpp samay samay gel lañ sax waaw ñoom moom maa leen gérer su ma su ma nee maire koñ bi ñoom xam nañ seen bopp quoi maa ngi waaw mooy loolu di gërëm waa Caare Géej parce que foofu ma taxaw fa tuuti foofa laa juddoo mais fii laa yoroo Pikine waaw su ma amee làmb dañuy bàyyi seen lépp combat bi passé waa Curuxu xam nañ li may wax dañoo dagg seen yi te jël seeni i kaar ñëw fii ànd ak waa Pikine dem stade te loolu yombul muy mafia faxas joxos ñoom baypal Pël Boy Reef Papa Diop ñoom Ibou di leen gërëm daal su ma limee rek damay juumee maa ngi gërëm faxas joxos bi yëpp di gërëm waa école de li Pape maa leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm Abdou Ndiaye père Jean Yannick père Baba di gërëm sama mbokku mbëri fa ne maa leen leen nii di rafetlu tamit si émission bi xëy na temps bi moo demee noo dëkk bi xaw a doy waar mais incha allah bu saison bi tijjee dana amaa ay yeneen jotaay yu gën a neex yi incha allahu rabbi waa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa di gërëm sama yaay di gërëmaa sama papa waaw noonu Mame Balla Junior lan dalaloon ci seen émission mag bi mooy émission seeti mbër deen wax ne leen ah, SBT ndax ñàkk abonné wóoru ndax émission seeti mbër fi ne nii wax naa leen maanaam wër na àdduna waaw mi ngi noonu Fallou Fallou Balla soxla Fallou Mongal kaay ana mun na ñëw kaay kaay nii wàccal toogal toogal nii waaw toogal adversaire Fall Fall nga soxla Fall doy dóore de Fall doy dóore de léegi yow nga ne koo man eh, ki Fall eh, Fallou. Eh, Fallou muy duuri de. Fallou dara. Ah. Fallou. xool lii. yéegi ay ku yéegi wàcc. benn ku ngay dur mu wàcc. waaw. Oh. yow ñi ma ngaa taxaw jàkkaarloo Fallou xeex ak moom. waaw. Oh. léegi loo koy wax. yéen lii ay coup yéeg wàcc waaw incha allah. sa diggante sa diggante sa diggante ak booy séeréer. ah séeréer. war nga bisab séeréer mbàccam gerte la de. waaye liggéey saa waay dafa liggéey de. <laughs> booy séeréer loo koy wax moom. ah eh, séeréer. yow daal yow daal sa combat Fallou rek. Ah, waaw. waaw. loo ñu loo ñuy wax loo ñuy wax ci mbër bi Mame Balla Junior sa diggante moom. Eh, kii maam. kii maam kii xale ah man bëgg ah, ah, ah. loo koy ñaanal. am am combat. incha allah daan. waaw. koo koy jox koo koy jox ban mi ngi noonu taxawal na taxawal na combat am diggante kon mi ngi noonu taxawal na combat diggante ki nga xam ne Mame Balla Junior ak ki moom mooy Yawou Dial waaye dégg ngeen bi mu wax mooy diggante fa Fallou Mongal xam naa danañ dem seeti Fallou Mongal incha allah léegi Mame Balla loo ci waaw may gërëm sunu benn ganaam mi Xaarim jaañ bu AG Teranga moom combat bi moom it jàpp na si bu baax a baax a baax a baax maanaam li ñu mooy si xaalis à part jar kenn mënu si kenn mësuñu koo may si làmb waaw Xaarim Diagne. lim ñu may si xaalis à part Amadou Diarra monsieur le maire kenn mësuñu koo may si làmb ñu ngi koy sant di ko ñaan xéwal gu yokk di sant waa ASC Teranga waa Yeew waa Daaru waa Gelewaar ASC bi yëpp ñu ngi leen di di gërëm Ibou Fall waaw kooku mention spéciale laa koy defal nekk na sama nit boo xamante ne moom làmb ñaaka ñàkk làmb la yemale moom toujours day toujours présent lépp mbër mi bu amul combat ni muy nekk ni muy dundee su mbër mi amee combat ni mu war a taxawee ni mu war a nekkee muy Ibou Fall maa ngi koy gërëm di gërëm gars yi mi àndal ñëpp waaw di char ñëpp SBT la seen émission seeti mbër den jox dig daje ak beneen champion ci SBT jërë ngeen jëf